من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من السلام عليكم بكو تي سبيكتاتور تومودو تي في يرنتي لي 3 مينيت دار الحاج عبد الفاتح نك بروم تايبا فتبارك الله يالنا يالا ماي ني موتلي كور بي اك جام يالا نانغول جامو يالا ينافي لي سرح ييب يوي ييب نك مبوكي بونتو توب لا ديلو تي يالا سبحانه وتعالى yàlla borom bi dafa wax ni euh, képp koo xam ne rek wut si nga ma man yàlla gàttanu naa la ba taf ci sama bopp bokk na ci nag yoon yooyu ni ngi koy jaaree mbokk yi comme ni ma waxoon léegi man tawaddaa fa ahsanal wudua mbokk yi yàpp dañ koy rafetal ndax xoolal sooy jàpp yaa ngi raxas say loxo yaa ngi raxas si gémmiñ xoolal diggante ñaari bàkkaar yooyu loxo mbokk yi loxo mooy bind convocation yi loxo mooy signé yenn décret yi mbokk yi loxo mooy bind mandat de dépôt yi loxo mooy opéré loxo mooy def nangam loxo mooy def nangam kon sa loxo yooyu mbokk yi bàyyil xel ni ëllëg ah bokk na ci cër yi nga xam ni yàlla dina leen waxloo antaqana allahu kulla shay'in keroog loxo day wax yow nag sa loxo yooyu kon bàyyil xel moo tax yeneen bi sallallahu ne sooy jàpp njëkk koo raxas waaw mbokk yi loxo dafa doy waar tabaarakallaahu soo ko raxasee nag ba mu set nga galaxndiku léegi nag xoolal diggante loxo ak gémmiñ te ñaar yooyu yëpp mbokk yi sunna la ci njàpp léegi nag galaxndiku bi mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa dafa xam ne gémmiñ def ci musiba ak mboosóor kenn mënu ko xayma fa tabaarakallaahu moo tax yentu saa sam ne doo leen doo seen gémmiñ yi ginnaaw boo leen waxee mbaax ba noppi amatoon loo leen di wax wax leen yiw te noppi waaye Sénégal nag tabaarakallahu mbokk yi boo xoolee sunu réseaux sociaux yi boo xoolee sunu tabaarakallahu antenne télévision yi nga xool débat yi tabaarakallahu waxante yu ñaaw yi vidéo yi enregistrement yi mbokk yi lii naka la ci ab jaam mën a saxee ëllëg nga mën a dem aljana ndax it bul fàtte ni waxoon naa ni la am na bàkkaar yoo xam ni yàlla moom yoonam nekku ci yow yaa ngi yàq deru sa mbokk jullit yaa ngi xas sa mbokk jullit yaa ngi bëgg a toroxal sa mbokk jullit te nag nga bàyyi xel bu wér ni yow lépp loo génne sa làmmiñ wi jëme ko sa mbokk jullit muy lu ñaaw ah ëllëg di nga ko rëccu sa kanamu borom subhanahu wa te képp ku jóg ngir yàq nit yëgal ni sunu borom pare na yow pour yàq la yow moomu ndax yéene néeg la borom moo cay fanaan kon nañu defar kàddu yi nañu defar làmmiñ moo tax bu ñuy jàpp ñu koy raxas ñetti yoon jël sunu baaraam mel ni ku koy soccu incha allahu taala ñu ko àggale nag ci beneen numéro ngeen ànd ak ëttu Maodo TV ci les 3000 del Hadj Abdou Faty Niang borom Taïba partagé leen yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu